borom jamono jaangi sa jëf leer na nopp leer na sax ñi dul ay jilil seeral la borom ruu yow la bàyyi saal mbokki jullit yi mbokki taalib yi dégg sunu kàddu te di ñu seetaan ci waxtu wi bu ngeen déggee bayit yooyu sëriñ daam ka fi jàng léegi dana leen wax fan la jotaay bii jëm ginnaaw bi ñu amee ndigal ci Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha am ndigal ci Serigne Touba Serigne Cheikh Mbacke ibnu Serigne Saliou ñu ci jàmbaar ja Serigne Mourtada Mbacke moom Serigne Saliou ñu fas yéene àndaat ak bokki jullit yi bokki taalib yi nanu ko baaxoo defee at mu jot bu liggéey Xelcom tollee fii nu ànd ak dongo yi dem bàddali ci tool ya ci taxawaayu soxna maam Issa Mbacke présidente ONC Ahlu Café Touba ni mu ko baaxoo defee nag. ak bokk yu baax yi mu ko baaxoo àndal noonu rek la ko fas yéene defewaat ma ngi ni toog feggoog bokkam yu baax yépp sëriñ Ousseynou Aw feggoog nun nii teewal fi mboolem mbokk yépp soxna maam jaara Mbàkke ànd ak moom ak mboolem mbokk yi mu ko baaxoo àndal ñëpp rawatina ONG Ahlu kafe ci teewaayu sëriñ Abdoul Ahad Dieye moo tax mbokk yi bu ngeen nu gisee fii nu toog nuy sant yàlla bu baax ci tooga nañ fi waxtu wi daaw nu fas yéene toogaat fi insha allahu taala déwén sëriñ bi nag tànnaat liggéey bu am solo jébbalaat ko jëwriñ ju jàmbaare lool ci tool yi Touba Daaru Tansil ñii nu ko wutale wayjur te mooy soxna maam Issa Mbakke njiitul fédération Ahlou Café mbokk yi kon daañ teewlu kàddu yi fi bàyyi ko sëriñ Abdoulaye Gaye dana yëkkati kàddu ci turu dongo yi dongay tarbiya yi nga xam ne ñu ànd ak sëriñ bi liggéey bi waaye sëriñ Mbay Silla dana yëkkati ay kàddu moom it ci turu fondation taalibe sëriñ Saliou Mbàkke yi bu noppee nag ñu jébbal kàddu gi jëwriñ sëriñ Abdoul Ahad Guèye mi wax ci turu soxna maam Issa Mbàkke mi présidente ANC Ahlu Café Touba mbokki kon bis baa ngi noonu nag départ bi la 20 lay doon le 20 novembre lañ fas yéene départ fii ànd ak mbooloo mépp benn départ lay doon dëkk mal xel koom nu déglu kon Serigne Ablaye Gaye mu wax ci turu donga yi. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki julli mbokki taalibe yi waa kër Serigne Touba Cheikh Saliou Abdoulaye gay Baye Fall Serigne Saliou moo nekk ci kàddu gi waaye du yi mbokki taalibe yi teew ci jaraay bi yëpp di jël diital ci nuyoo beeg ziar bi sunu soxna su baax si tedd ci sunu ginnaaw soxna maa Isa Mbàkke ahlu kafe yàlla na ko suñu yàggal lool te may ko ak waaye di ñaan bu baax Cheikh Mouhamadou Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadou Bachir suñu borom yàggal ko fi lool te may ak wér ak mboolem jabar sëñ Tuubaa gépp di ñaan suñu Cheikh Ahmadou mi nga xam ne mooy jëwriñ mboolem dongob sëñ Tuubaa Cheikh Saliou ak mboolem euh, njaboot gépp di ñaan bu baax Cheikh Mouhamadou Mourtala mi nga xam ne moom borom taw féexal ñu war a dem fële xel comme daatoon si suñu borom yàggal ko lool te ak wér ñun nag comme ni ko suñ maam Mor waxee léegi rek ñu ngi yëkkati kàddu ci turu donga yi nga xam ne ñoo doon laxasaayu te féetewoo Xelcom Daaru Tanzil ci njiitu sëñ Abdul Xaadir Jiil Seck mi nga xam ne am ngant moo tax mu wute jataay bi ak sëñ Mouhamadou Lamine Seck mi nga xam ne baaxu nañ ko nu gis jataay bi léegi rek mi ngi may woo euh, dañuy ñaanal waajuram moo tax teewutu jataay bi kon ñuy gàttal kàddu yi rek kàddu yi ay kàddu di soññee la liggéey la boo xam ne képp ko xam ne yaa ngi ñuy seetaan liggéey bi fàttali doon si yow ndax yàgg nañu koo def kon nag noo ngi soññ mbokki taalibe bi yëpp di soññi jiwri ñi nga xam ne ñoom leen ko àndal euh, muy daayira euh, ahlu café ci njiitu soxna maam Isa Mbàkke waaye daayira ñaqal Serigne Saliou te njiitu sëñ Abdou Diop mi ngi doon woo léegi xëy na euh, daa am ndog-ndog waaye léegi dana egg si jotaay bi incha allah rabbi di di ko àndal bu baax daayira Abdou Ndiaye féetewoo Touba Daaru Marnaan waaye di ko noonu daayira ma Fatul Bisiri nekk fële ci yoonu Daaru Euh, soxna Mariétu Ba jiite ko yebal fii sëñ Mortala Sey mi ngi nii suñu wet waaye di ko ànd bu baax euh, daayira bi nga xam ne mooy dafa sosuwaat ci liggéey bi ni ko suñu maam Mor waxee léegi mooy fondation Serigne Saliou kon liggéey bi amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am liggéey la boo xam ne kenn ku nekk loo ci def na ko xeeb te xam ne buñ la ko fayoon ëllëg danga xam ne liggéey suñ Tuubaa rek wóor jëwrin yooyu leen àndal liggéey bi ak euh, daayira ma farul jinaan sëñ Babacar Diop jiite ko fële ci Touba Darou ñooñu leen ànd liggéey bi waaye ñu ngi àndal suñu jëwrin sëñ Basiiru Diouf ñoo nekkoon ci daara ji mooy jëwrinu waa ñu xel comme daatun sil ak moo sëñ Abdoulaye Ndiaye Baye Fall mu ngi nii toog jataay bi kon liggéey bi ndigal langoog am na ñu ndigal sëñ Mouhamadul Mourtala liggéey bi jàpp nañ ko la fin muy liggéey boo xam ne dañu ko jox bàyyee ne ko biñ fa demee di yeetal ndigal yi lam ñu wax dem nañ ngeen waxtaan ba déggoo bis bu ngeen déggoo rek ànd naa ci ak yéen bi ñu waxtaanee ba déggoo na ak réunion boo xam ne sëñ Abdoulaye la ko fekk muy jëwriñu seq liggéey yëpp ban dëppoo ci kon yàlla suñu borom yóbbu ak jàmm nu fàttali mbooloo mi jumtukaay yi nga xam ne képp koo xam ne waroo dem ci xeex di abbi ngànnaay waaye ku xam mbàcc wala koo xam ne xamoo ko li ci jiitu mooy rado bi nga xam ne moom la ñuy bàccee li ci topp mooy fourchette bi nga xam ne moom lañ koy jëree suñu ko jëree ba noppi saako yi nga xam ne moom la doon gerte gi loolu ñoo ngi ciy soññ mbokk taalib yëpp parla yi nga xam ne moo dajale ngooñ mi loolu it ñoo ngi ciy soññ baax waaye jumtukaay yëpp yo xam ne dañ ko yittiwoo ci tool yi boo kenn fàtte ndax ay njaboot yi sew fay dem ndox lépp loo xam ne lu moo def ndox la kenn ku nekk noonu lay soññi ci loolu nga yóbbaale ko waaye li ñuy wax tamit woto yi nga xam ne mooy roñ gerte gi ak ngooñ mi loolu it fàttiwuñ ko képp koo xam ne yaa ngi seetaan yaa ngi ñuy seetaan fii ba bitim réew ci biir réew mi yaakaar na la ci woto boo xam ne nii dana mën a roñ gerte ak ngooñ ñu ngi la ci woo ngir dimb suñu Saliou Mbacké suñu yaakaar ja kon bis la boo xam ne ku def sa ñàq du doo bu ëllëgee doo ko rëcc mukk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi ginnaaw bi leen nuyoo di leen ziyaare di wax si turu fondation taalibe Serigne Saliou ngir wàccaay wi nga xam ne moom lay amal le vin bi nga xam ne moom la ñu départ si ndigalu Serigne Mourtala moom Serigne Saliou loolu nag bépp fondation boo xam si ni mu ngi si biir liggéey bi rawatina bu taalibe Serigne Saliou yi yi nga xam ne ñoo féetee dakaar di son dakaar bi leen soññ bu baax a baax si teel a ñëw gi ngir tamit ñu mën a ànd ak ñi nga xam ne ñoo jëwriñ yi ngir mën a dem sa tool ya waaye ñoo féetee sa Thiès ñoom tamit ñu leen di soññ bu baax a baax si teel a ñëw gi ngir tamit ñu mën ànd ak ñi nga xam ne ñooy jëriñ yi ngir mën a teel dem sa tool ya waaye tamit ñi nga xam ne ñoo ñu gën a jege di féetee Jurbel ñoom tamit ñu ngi leen di soññ bu baax a baax a baax ngir tamit sa sañoon ñu fanaan si fi nga xam ne mooy bu buñ xëyee ñu mën a ànd ak jëriñ yi ngir mën a dem sa tool ya waaye du leen fàtte wax tamit li nga xam ne àgg leen ko muy saako yi nga xam ne jëriñu wax nañ ko ak mboolem jumtukaay yoo xam ne dañ koy amal ngir mën koo bàccee mën koo jëree mën koo layee waaye ay paan yoo xam ne tamit dañ ko mën a am tamit mboolem ku bokk si fondation bi nañ la koy fàttali bu baax a baax jëriñu daa wax lu am solo léegi ngir ne boo dem si xare war a fàtte ngàndaay ginnaaw ngan la boo fàttee sa ngàndaay ginnaaw du na doo am ndamte waaye sa ndam dana jafe lool kon ni nga koy bàyyiloo xel ñëpp yar beeg teggin bi ak mboolem yi nga xam ne moo moo war si liggéey bi ñu def ko bu baaxam